Mandiaye mi nga wax ne moom accueillir ba ni ko Wally accueillir di ko ñaawlu accueillir bu am ñoom la ko bokk nga ci ndax posé nga ma question bi ma ne la accueillir bu am jom bu am ngor bu am lislaam bu am diine boo ami i teggil la ko accueillir ni mu def bàmbaali la ko def si mm. parce que Wally avant que accueillir bi tudd na turam ne Mandiaye ngi ci biir kii bi salle bi moo bàmbaali ci xew wi lañ bokk loolu cër bi bi mu waree yeeg c'est que Mandiaye moo fa nekkoon di yoot mel ne kàkkatal yow yéegal ngay dem ci di yoot di deme ne di yoot di demee ne. parce bi ñu bu mu ko. non non non non déggoo ma ne la waale déggoo ma ne la waale dafa njëkk tudd ne Bambaale ma ngi ci saal bi Mandiaye ma ngi ci saal bi ci takk gi lañ bokk ci xew bi lañ bokk bi ma Bambaale demee yéeg Mandiaye dafaa nekk di yoot naan nii jël daraa ji di bokk di lu muy yoot yoot googu nag moo ko indee yëpp. parce que fexe na ba bàmbaali ñëw ci kaw seen waali def fa loo xamante ne ni ko way way benn genre octave àndat waali ci son bi way way mucc ay ay wax la muy wax wàcc dem yoonam avant Papa Ndiaye di coppe di xanaa moo ni ma nga woon ca ginnaaw seen ba taxaw ngir bëgg a yëg mais lan lay taxaw ci ginnaaw seen sa mag woo na la tudd na sa tur kon nel ñëw ci kaw seen bi yëg imposé sa bopp. mais boobu dafa nekkoon di nuyu di nuyu famille non nu nuyoowul famille ba jóg di nuyoo nuyu ci famille. ah yow au lieu nga ñëw direct ma Ndiaye di yoot di yoot ba papa Ndiaye coppe di yéeg bi papa Ndiaye coppe di yéeg nag moom ci la buru rek xool fa mu jaar sax xaju ko ndax ndax tiit lu muy tiit xam naa daa jàpp ne bu yéegee fa mu bokk dañ koy toroxal soit waali daf koy toroxal te waali du ko def loolu déedéet du toroxal de eh eh ude nam la seeni dong la lay éwale Mandiaye moo jël micro bi au lieu ma maa ngi nuyu ñëpp gars yi pour gars yi def nànk tëgg mi waaw déglu ngay déglu rek ma wax la histoire bi ni mu demee maa nga fa woon bi mu yéegee au lieu mu ñëw rek way wala mu ñëw rek kii dafa yéeg na salaamaaleykum maa ngi nii ñëpp waaw man sax munu jël may way way nga lépp lu tax bambali bi mu ñëwee waali jox ko micro daa way mais parce que waali dafa yaatal bambali eh, nag d'accord uma de nit li sëriñ bi waxoon tubaab ba kasabta d'accord uma de bambaane dafa ñëw waali jox ko micro mu osé way manjaay bi mu ñëwee waali da ko jox micro ne manjaay daa waroon na woy ba pare doo ko wax mais woyut maa ngi ñëpp Aline sëy bi na barkeel waaw man nag jërul may wax waali ne ko waali ne ko sa nangam rafet na sa dafa jërëjëf lu ngeen bëgg mu wax waaw parce que noonu la ko séenee noonu la ñëwee bu ñëwee woon at way waali tontu ko ci ay way waali fàtte na loolu de li ngeen wax ni waali fàtte na ko bu yàgg man xanaa man mi nekk seytaane soo bis bi kay maa ko jàppoon sama xel bi mu yéegee rek waaye waali fàtte na ko bu yàgg loolu billaahi waali du ci debaa sax détail loolu fàtte na ko bu yàgg boo ko jàppoon du yëg ci kaw seen bi waalee moom seenam nag di noo de même bu bokkee ci famille bi bu ko neexul waali bu fekkoon ne jàpp na mer boobu bamba waa kii ndaw waa ji du yëg ci kaw seen bi kan barke Serigne Bamba waali at koo mën a doon ba bëggul nga yëg ci seenam doo ci yëg ba bugguloon manjaay ci seen bi manjaay du sax xaddu foofu bay yoon manjaay daal li mu war a def mooy na contacté honorable député ma woo ko mu ñëw tuubal magam fii gis nañ fi lu ne tooñ gu ne gis nañ ko fi mu ñëw tuubal waali jéggalu ko mu nekkaat ci jàmm xam nga li ma la li muy dund nag metti na trop moom li muy dund métti na de gaa yaa ngi koy kar ko agressé téléphone am réer na yooyu daal ban daal vraiment man daal man daal ay bàyyi dem feneen daal monsieur ba dong la la jural ah barke Serigne Touba Mbacke Mandiaye dama ko yërëm a yërëm a yërëm ba nga xam ne parce que feeñatut aji Mandiaye woyatut Mandiaye dernier dernier woy bi ma doon def démb def ko gëj naa ma njaay baat bi est-ce que taxawul sax nekk ci label te moo fa benn njëriñ ma njaay ni ñëw na réglé tuubal magam def vidéo gars yi ngeen jël ko loolu wàññiwul dara tooñ sama mag jéggulu ko wàññiwul dara man de bu ma tooñoon mu leeral ma koo tooñ maa ko tooñ damay toog fii ne maa ngi koy jégalu maa ngi koy baax na ma koy ñaanal billaahi wallaahi wa taalaayi dafa am ko moom mosa woo téléphone barki démb yàgg def nangam ak nangam dañ ko agressé ba jël téléphone am boobu sax sama rongoñ daa wadd barke barki borom Tuubaa te boo demee nga saytuwaat wala nga woo ko yow après nga laaj ko ba xam ne sañ ko agressé wala mënuñu ko dina la ko wax ah waaw oto ba xañ na xam nga banque nag boo banquee fa yoo ngóor si la daan jox meroo ngeen yàqoo ngeen fa nga ne duñ la jox 1000 francs sax wayoo waaye yéen ba ma demee fee ba léegi neen koo gis muy way mm. aji est-ce que clip boobu sax ci compte compte YouTube am la dugg ma dañ ko maanaam maanaam ñooñu dañ ko woowoon pour fajee mer par antuut maanaam dañ koo gëmloo woon loo xamante ne nii que ni maa man a moo tax àdduna dafa yéeme nit lu la nit di man di wax ci sa mbokk bul ko déglu comprendre nga waaw. waaj waaj ñuy sant waaj màgg gi le un septembre mooy sama anniversaire. le un septembre. mooy sama anniversaire waaw nga xam ne dañ koy safar fii rek xëy dem Touba incha allah ah woote fi ay jàng ma invité sama mbokk journaliste yi ñu ànd dundu safar gi. mais ah? waaw parce que. Ah, ñaari at foofu nga ko eh, defee. mi moom bis bi sax day toog na sept ans xaw ma ñaata. defeewu ko Touba te bi mu ñëwee la wax nañ ko ko santale am de donte man ab jaam laa bu xeebu ñaari at yooyu fekk ma ci kaso misaal la gu borom bi doon jox rek bu bu ma génnee màggal bu ma fekkee ci biti ma xaw nu ma leen taxawoo bu baax te it sama màggal yi ma màggal ci kaso dimbali naa waa kaso ba de ndax indi nañ fa ay nax ngir nag ngir sama jëmm te bu ma fa nekkuloon man naa wax ni nag yooyu du fa dugg mooy si bi xutaan gi ma njëkk a defee ñaari nag nag laa la wax indi nañ ko fan ngir sama jëm ren it incha allah maa ngi koy wax sax di ko wax euh, Waly di ko wax Doro Gueye PDG Xipil xool di ko wax Cheikh Amar ñi nga xam ne samay nit lañ di ko wax tamit képp koo xam ne lu baax rek nga bëgg ci jaamu yàlla rek nga bëgg ci bis bi boo mënee jënd donte benn nag wala soble lu mu mën a doon yóbbu ko ci prison yi ñoom dañ koy dund de màggal ngay xam ne ñi ci ëpp ci kaso yi ay murit lañ dañ koy dund ba pare yéen it yéen a war a jaay màggal gi jaay jar na waaye yéen a ko war a jaay ci image ni ngeen koy jaayee mooy malade ba tëdd ci kaw lal hôpitalam war na mën a seetaan ci YouTube bi kontaan ndax wan gi ngeen koy wan màggal gi waaw moo dama dama leen di gën a ñaax yéen a ci mais dama leen koy gën a ñaax ngeen bàyyi xel nit ñi ngi leen di bàyyi xel nit ñi amatuñ jotu seetaan télé YouTube bi rek la ñuy seetaan mais nag maa ngi leen di ñaan su ma kii yoon sax damay wut benn daluwaay boo xam ne spécial journaliste yi pour yéen kese pour presse bi maa ngi ci tànk yooyu dina sotti di jaajëfal ñëpp ah merci beaucoup. ñu ko jaajëfal mbokki internet yi ñu doon topp tey nag ki nga xam ne eh, moom moo benn affaire euh, yaakaar naa ne nag kàddu nga xam ne jot nañ ko fee sekk amal na leen solo bu baax a baax di ko jaajëfal jox leen rendez-vous bu yàggul ayca ci lan nga bëggoon a wax. après bu am na lu ñuy waaj a génne nii bu génnee. Mhm. mbir moomu daa am yére boo xam ne waali moo ko simmil boppam solal ma ko loolu duma ci waxagul léegi su affaire boobu génne laa ci wax. yére bi waali solal. loolu loolu nga bëgg a jël def ko. non loolu xew na baal ba affaire bi ñuy waajal génn ba pare. incha allah incha allah jaajëf.